ay débat d'orientation yu def ay débat contradictoire ba nit Dakar donc ñu dem ci plénière yi ñu gis encore invective yi xa xuloo xiiroo ak ngaayoo saaga xasante loolu saa yu amee ne député ba ba ba ko def toogalul askan wi waaye kuréelu langukam la toogal fi mu nekk nii loolu lañ commencé waat gis te loolu nag dañ ko war a xeex bu baax parce que député sa kuréel politique moo lay investir sa kuréel politique moo lay yóbbu assemblée nationale mais boo toogee assemblée nationale askan wi nga fa toogal toogaluloo benn parti politique toogaluloo coalition toogaluloo sëriñ toogaluloo tarixa toogaluloo kenn Sénégal yi war a yemale danga nga war a tëddee njaaxaanaay buñ indee lu baax pour Sénégal nga càmbar ko wote ko buñ indee lu bon pour Sénégal nga wane ne lu bon la daal di ko dàq donc regard boobu laa ciy am di ñaama euh, naataango yooyu ne leen Sénégal am na torop yaa législature bi parce que dafa nekk assemblée boo xam ne mosuñ ko am assemblée bu équilibré assemblée bu équilibré rek dafay permettre ñu am un débat contradictoire démocratique nit ñi lunti ñëw dinañ ko waxtaanee ba mu leer ñu doog ko jàllale donc coow yeeg yu mel noonu est Euh, li ko motivé dul la configuration actuelle de l'Assemblée nationale wax nga ko léegi ñaari pàcc yëpp loo doole euh, xëy na est-ce que mbir yi mënuñu ko woon xaar non man pardon naa bi nit ñi di wax assemblée de rupture bi nit ñi di wax ay euh, cohabitation nee naa leen cohabitation amul Sénégal waxtaan moo war a am Sénégal parce que loo bloqué loi bu projet de loi gouvernement député mënu ko bloqué mm-hmm. dañu voté mais boo votewul loi de finance boo ko votewul président de la république fay jël article 52 de la constitution ne institution parlementaire du Sénégal a été bloquée donc damay jël les pleins pouvoirs bu jëlee plein pouvoir yi dafay diriger ordonnance bu boobaa day delloo si budget daaw ba tegaat ko continuer donc li ñu war a def mooy waxtaan donc doole boo ko amee doo ko pour xeex da nga utiliser pour peser su la négociation ñu nekk naam même ñaari député yi ñu porté plainte boo xoolee peut-être que saisi président assemblée nationale mun na bouger le procureur mais avocat ndaw si plaintam bi mënul prospérer xam nga lu tax parce que buñ bu boo ko plainté def procédure levée immunité parlementaire boo defee procédure levée immunité parlementaire ak bu équilibré bi doo mun a teg commission ad hoc. mais mais la honorable mais bu fekkee si euh, situation bu ñaari député yi parce que dañu gis ne ne euh, affaire bi flagrant délit la bu dee flagrant délit est-ce que dina jaax ñuy dem euh, ci procédure bi bu comme genre bu ñu jox exemple bu Ousmane Sonko ni ñu defee procédure bi. merci beaucoup merci mm-hmm. mais flagrant délit du nit moo koy décider. Mm-hmm. yow miy porter plainte doo ko décider. si si procureur moo koy décider. Mm-hmm. daal di saisiru la force publique ñu la. nag mënoo wax procureur lii flagrant délit la mhm. moo tax plainte bi mënul prospérer saisi président assemblée nationale bi ko règlement intérieur may mhm. ci article cinquante cinq loolu moo mun a tax procureur d'ailleurs looloo tax procureur yónni pour ñu dem seeti leen mhm. mais plainte bi taxul ñu seeti leen très bien Euh, bu ñu ñëwee ci euh, doyen doyen euh, bu ñuy wax mu ngi koy wax léegi ci biir assemblée nationale bi mais dañoo jëpp dañoo joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoo di parti politique yi parce que dañu jàpp ne manque de formation la ñu nemmeeku te nu ñu leen neexee la ñuy tabbee jëlee seen ay député moo waral li ñu nemmeeku ci assemblée nationale bi. waaw jërëjëf ñu leen di sant ci invitation bi di nuyuwaat excellence honorable mm-hmm. Montey di wax ni justement au moins. nañu apprécier benn affaire mooy amul blocage institutionnel. Mhm. maanaam institution parlementaire mu ngi fonctionner correctement. Mhm. comme toutes les institutions du Sénégal. Mhm. te loolu dañ ciy sant yàlla ñu ngi voté budget yi débat yi contradictoire mi nga am ñu ngi posé ministres yi ay questions de fond gars yi ñu ngi répondre ainsi de suite donc débat c'est intéressant maintenant il y a des problèmes. problème grave parce que amul ay problème yu ndaw y a des problèmes graves te loolu mënuñu bett ndax profil député bi duñ ko duñ duñ ko seet n'importe qui au Sénégal ba la pratiquement mën na nekk mën na nekk député évidemment c'est la représentation nationale mhm. normalement baykat bi war na fa ne artisan bi war na fa ne ouvrier bi war na fa ne keneen war na fa ne keneen war na fa ne mhm. mais dans tous les cas buñ demee bu dugg war nañ au moins am benn tenue benn comportement des de renforcement de capacité peut-être yu institution bi mu bëgg war a organiser boppam mhm. pourquoi pa xool nan leen di accompagner les députés par des assistants parlementaires ñu xool parce que boo xoolee difficultés yi li koy indi souvent en politique mooy discours yi ñuy improviser en général nit day ñëw taxaw improviser une bonne partie de son discours wala boog bu ko préparé tamit du ko da koy da xelu boppam da koy doy ba nga xam ni dafay wax loo xam ni waxuwul mu def loo xam ne defuwul laa dame dañuy jël exemple espèce Ami Ndiaye li mu wax ñëpp ko ñëpp ko xam c'est-à-dire que lu ñëpp xam mhm. jarul wax ba ciy dem hôpital <laughs> donc ci waxin ci waxin euh, pour tënk rek euh, li mu wax noonu mais Sénégal yëpp ko nañ ko. Mhm. mais à partir de ce moment est ce dem hôpital. donc euh, voilà donc yooyu moom moom lañ war di mesurer te loolu aussi éthique individuelle ku si nekk aussi sa responsabilité individuelle du responsabilité forcément institution parlementaire bi la mais responsabilité individuelle député yi parce que mënoo jël député yëpp généraliser leen aussi. parce que ay quelque la. yoo xam ne dañ fay dañ fay comporté woon noonu. Mm-hmm. formation parlementaire ñu bëri amuñu ko évidemment bu fekkee amoo fa expérience. Mm-hmm. ñu bëri amuñu formation boobu. li ñu am formation mooy à la civilité et. formation euh, def lu baax xam lu baax di ko def xam lu baax di ko wax mais aussi xam lan mooy citoyenneté noo war a taxawee et surtout bu ñu la joxee ndomba tànk jox lay responsabilité. alors mais doyen ñu bëri dañu gis ne euh, mbir mi dafa am euh, daanaka ak ak jafe gi ci nekk wax nga ko sànq yaa ngi koy rappelé assemblée xamee nañu ko ci ay problème saa si absolument lu ñaaw est-ce que président assemblée nationale mi bu ko ko règlement intérieur assemblée maye est-ce que jaroon na mu yegg bay saisir le procureur pour ñu topp wala à la limite même arrêté deux députés yi nga xam ne ku xam début assemblée ni muy mel na nu ko noonu en moi je pense que pour répondre franchement à ces questions pour man yéex na ko def. ah, ah su ma nekkoon à la place très franchement du président de l'Assemblée nationale séance tenante. séance tenante dinaa demandé au procureur ñu arrêter ces deux députés séance tenante devant les caméras et devant le monde entier. parce que xam nga lu tax vu seen degré de responsabilité au regard de la solennité maanaam institution parlementaire doole ji ko yàlla may ak gëdd bi mu am devant le ministre de la justice nga dem frapper yow homme nga dem frapper une femme profitoo sa temps de parole di agresser une personne keneen ñëw agressé waat cette personne je demande votre arrestation séance tenante en vertu maintenant procédure flagrant délit parce que bu dul flagrant délit kenn mënul leen a arrêté surtout session lañ nekk mais flagrant délit mooy lan flagrant délit mooy loxo ci poche. Mhm. ñu jàpp la nga nekk en train de faire l' infraction. Mhm. wala boog dans un temps voisin c' est à dire que yaa ngi koy def ñu dàq la par exemple nga daw. Mhm. muy sàcc muy njaaloo ainsi de suite. yooyu la ñuy wax flagrant délit maanaam daal bu ñu ko bëggee tënk ci wolof. mooy loxo ci poche à partir de ce moment là procureur bi dafay am ay pouvoir exceptionnel. mooy mën la mën laa jàppalu. yóbbu la ci yoon ñu àtte la rapidement parce que les faits jarul enquête. jarul information judiciaire mais problème n'a pas été inquiété malgré ces injures ak euh, provocation yi maintenant ñi fay walla ñu dóore rek la ñu la ñu daal di euh, euh, merci la ñu daal di dut baaraam est-ce que loolu aussi ça ne pose pas problème non la dame saagawul attention non nañuy xam nga à chaque fois mhm. nañu jël wax teg ko ci contexte di wax dëgg ngir yàlla mhm. dame bi saagawul kenn dafa rappeler les faits bu ko rappelé nag dafa insinué maanaam dafa dafa dafa njottuloon nit ñi ni sëriñ ba la mu diggee woon defu ko. Mhm. mais moom sax waxul ni sëriñ bi li mu diggee woon danañ moo fi waxoon nangam mais c'est vrai moo ko fi waxoon. à partir de ce kan la saaga est-ce que mën nga porté plainte daan bi na ko yow da nga saaga diw non. man nga ko ni wax bi nag wul parce que man personnellement par exemple condamné naa wax bi dans le contexte. Mm-hmm. parce que amu fa place. amu fa place. Mm-hmm. Mm-hmm. jaru ko wax naa ko sànq sama début wax. jaru ko wax yaa ngi wax loo xam ñëpp xam nañ ko. Euh, kilifa aussi da nga koy. da nga koy wet. da nga koy da wax aussi day day teggnu. mais yooyu yëpp c'est vrai. Mm. mais saagawul nag. d'accord <laughs> saagawul d'accord mais foofu est-ce que tey jotul également ñuy dissocier les deux euh, par euh, maanaam euh, wàllu politique homme politique bi ak ki nga xamante ne moom moo di chef de parti bi. parce que comme nañu ko waxee ñu bëri dañoo jàpp ne ki nga xamante ne moo di sëñ Moustapha moom la nommé la ñu wax que ni chef parti ndax moom moo créé li nga xamante ne moo di PUR mais également guide religieux la est ñu ko di faral di dissocier ci biir assemblée nationale. non lenn rek lañ mën a dissocier mu am pertinence. Mhm. mooy fonction président de la république ak chef de parti. mais leneen lu mu mën doon mënoo ko dissocier la constitution du Sénégal est claire. Mhm. day interdire toute parti tout parti politique d'obédience religieuse même benn parti boo xam damay référence religieuse daf koy aaye wala racial wala sexuel yooyu genre quoi mhm. daf koy aaye loolu constitution bi rek la ne ko de ñun ñoo gëmm suñuy bët bàyyi ay nit créer parti mu wóor na ni parti bi ñu créé mu ngi endossé ci un mouvement religieux ñu fermer les yeux parce que depuis 94 événement policier yi bi ñu fi amee ba léegi ñoom tamit defuñu benn at anti républicain boo xam ni da xay na dina inquiéter les sénégalais mm-hmm. mais damay wax ni la constitution est claire à ce propos léegi nag yow marabu bi soo créé sa parti politique yow yaa def confusion du genre ok parce que pourquoi parce que boo positionné woo di nga am adversité adversaire yooyu dañuy jàpp ni ñoom homme politique bi la ñuy waxal da donc boo waxee say wax amaa nañu jàpp dañ la war a tontu c'est ce que la dame a fait ma dame bi mm-hmm. mais dafa tontu solo li sëriñ bi waxoon mm-hmm. attaqué Macky Sall et cetera moom mu tontu ci loolu c'est le plan politique mm-hmm. mais taalibe yi lan la ñuy jàpp que kii kat dafa blasphémé maanaam tey dafa doyadil seen sëriñ. ce qui daf leen daf li ñu ñoom li ñu gëm seen conviction profonde. moom daf ko daf ko xajamal. te loolu day da leen di jaral seen bakkan. xew bien bu boobaa rek homme politique yi marabu yi ñoo war a xam nu ñuy taxawee ci politique waxuma du ñu def politique. parce que c'est des citoyens. bokk mm-hmm. bokkuñoo man nii. parce que ay réglateur sociaux lañu dañu war a tëdd njaaxaanaay pour ku jaaxle ñëw si ñoom alors honorable euh, dafa nekk situation boo nga xamante ni ñu bëri dañu jàpp ne amoon ay cas similaires yi fi amoon euh, le cas Mame Diarra Fam ak yeneen députés yi nga xamante ne ni euh, ils ont été maltraités ay jigéen lañu ci assemblée nationale te vague d'indignation bi am au niveau de l'assemblée tey jii nii à l'encontre de la dame Amy Ndiaye bi amul woon est-ce que mbir mi amul am na tëddee njaaxaanaay